dalee ko ci Abdou juuf ci ablaay wadd ba ci Macky Sall muy nekk loo xam ne da leen di stressé yaa ñu koy dindal quotidiennement kon boo taxawee tey ne da ngay présenté candidature Kouthia même boo fekkee ne lu ñuy xaar ci yoo amuñu ko bu ñu xëyee di la gis ci bi rek su ñu xel day daal te dama ne li ma bëgg sénégalais xam ko mooy lii may sumb nii nekkul loo xam ne dama ko improviser wala dama bàyyi ba dernière minute ma bëgg bokk ci langue bi te xam ne respect. dafa am ci doomu aadama amul fenn foo xam ne dañu tënk ne boo dee comédien boo dee menuisier boo dee journaliste boo dee animateur boo dee cordonnier boo dee taximan loi bi may la nga dugg mais président Lula bu Brésil ouvrier la woon jàngam tax kon sori mais Brésil tey bu demee ba suqalu ko ñu xam Brésil ci àdduna bi nga xam ne ci pays Amérique latine yi la bokk mooy Amérique latine bokk na ci continent bi nga xam ne ñu bëri dañoo néewle doole te Brésil tey suqali na ko grâce à Lula. George Weah bi nga xam ne footballeur la. te kenn xam ka amul carrière politique boo xam ne jaar na fa. mais tey moo diriger Libéria mais pourquoi pas un Kouthia un Samba Sine di sénégalais amuluma état topp ma état ma pédophile. violé ma defuma lu ñaaw lo xamne tay kenn mun na taxaw buñu jakarlo jàkkaarloo mun yow dama nga régler sa problème bi moy priorité que nga taxaw di nekk candidat. mais mentalité sénégalais hein? et je suis sénégalais je reste sénégalais j'ai aucun complexe ci ben acteur politique bo xamne ne da nga jàkkaarloog man may am arrière pensée pour buñu jakarlo ma faible je sais l'état xamna état xamna ñi dem ci plateau télévision yi lañ fay wax ëpp ñuma ci xam-xam je suis informé chaque jour les plus journaux information politique économique culture sport parce que pour me rendre sénégalais information bi nga de ne de mes que journaux synthèse antithèse thèse pour est-ce que comme que euh, le du. le 24 février du soir le 24 février du soir à partir de 18h président Macky Sall avec tout le respect que je te a na nga dental ma caabi palais bi te nga xam ne dinaa ko jël si ànd ak sama délégation mooy ñi nga xam ne ñoom laay àndal ci xeex bi du ma ci demal kese. mais man dama yaakaar ni yow est-ce que nekkul lii benn stratégie pour dem jàppale Macky Sall la tamit. mais dama man fi ma nekk di fi liggéey fi ma nekk di liggéey sama patron Benno Benno Benno Siggil Sénégal la nekk non. xel yi tey mais demoon ci Youssou Ndour moo gën a jege.